salaamaaleykum sama gaay maa leen di nuyu di leen ziar pour yéen ñi nga xamante ne euh, da ngeen di suivre sama chaîne YouTube di KMS Tuto TV waaye di leen ñaan ngeen di wéy di abone di partager chaîne bi mu ñu yokk doole tey nag dama ñëwoon pour euh, wan leen naka la ñuy créer chaîne YouTube. Eh, dañ koy def ay parti parti yu bari nak képp ko xamantene sétan nga vidéo bi na nga activer cloche de notification bi bo bëggé xam lu su bari parce que eh, nekul ni té rek lañ koy def dañ koy def ay parti parti wa pour nga créer sen youtube nak yeen eh, ñi nekk ci youtube di sétan rek nga xamne di bi mom du leen li dara légui il faut nga dem bo bëggé di gagner xaaliss ci youtube bi comme ñeneen ñi ñëpp di jëf mën nga nelaw sax di gagner xaaliss ci youtube bi sans dépasser dia vues rek ay abonné léegi tey dama ñëwoon pour wan leen naka la ñuy créer seen YouTube léegi pour nga créer sen YouTube il faut nga créer sa adresse email ba puri pour yéen ñi nga xamante xamoo lan mooy adresse email léegi da ngay ñëw dugg Gmail léegi boo duggee adresse email léegi da ngay ñëw fii si dee bii nii léegi boo ñëwee si dee bi parce que lii lépp adresse email la mais man damay ñëw choisir benn adresse email parce que dama ñëw pour won leen léegi nga ñëw fi ñu def Google léegi une fois nga léegi fi ñu nekk nii code téléphone bi la may laaj léegi boo dee dangay ñëw def sa code téléphone nga bàyyi mu recharger tuuti eh ok sama gars info il faut que mu ñëw fii nii léegi da ngay ñëw fii fi nga xamante ne foofu mooy créer un compte léegi da ngay ñëw créer un compte léegi après nga def eh, pour moi wala nga def pour mon pour gérer mon entreprise léegi man damay def pour gérer mon entreprise léegi eh, yéen tamit ngeen def pour moi parce que yaakaar naa yomb Euh, da ngay ñëw fii pernom sa tur lañ leen laaj fii sa sant léegi ñu pour bu dee entreprise la ñuy def léegi dañuy ñëw def suñu turu seen YouTube léegi nii lañuy def def nii léegi def kaay mosquito comme ça mooy suñu turu seen YouTube bi léegi fii dañ la nee nga def jour bi euh, parce que dañ leen di won rek euh, lu neex la ñuy def ok léegi da ngay ñëw fii dañ la ne nga def genre lii homme femme non précis personnalisé léegi ñan dañuy dew def homme léegi gis ngeen fii mooy li nga xamante ne mooy seen adresse email pour comme ça ni euh, da nga si war a jël benn adresse email léegi ñun si digg bi la ñuy jël Tito KMS 4 euh, boobu moo gën a yomb léegi fii pour mot de passe bi léegi mot de passe bi lañ war a def nii xam naa dañ koy masquer ok sama gaay gis ngeen mot de passe bi ñu doon defar jàll na léegi fii numéro téléphone bi léegi fii da ngay activer sa numéro téléphone wala nga def ignorer wala nga bañ kaa wala nga bañ see dugal sa numéro téléphone ok léegi compte bi créé wu na euh, léegi gis ngeen KMS Tito léegi compte bi créé na une fois compte bi créé léegi da ngay ñëw ba suivant léegi boo defee suivant da ngay ñëw wàcc ba si suuf fii yaa nah, def accept lagi ngeen baru ma accept ngay def léegi une fois nga def accept compte eh, bi ubek oke sama gars lagi léegi gis ngeen compte eh, bi ubbeeku na léegi xaaral ma dem won leen compte bi léegi compte baa KMS Tuto TV wala léegi compte baa ngi nii compte bi lañ doon defar boobu léegi léegi compte bi ubbeeku na euh, parce que tey euh, vidéo bi lañ doon def euh, incha allah partie 2 bi dina ñëw partie dee bi si ngeen di xamee naka lañuy ñuy créer seen chaîne YouTube parce que partie 2 bi ngay xam naka ngay def ba créer sa chaîne YouTube ba mën a commencer gagner ba générer ay revenus si YouTube bi ok sama gars yi maa ngi leen di. te partage képp koo xamante ne activé nga cloche de notification bi nag benn vidéo dootu la rawati si si vidéo yi